tant service technique ou ville de Dakar nous euh, avons gestu fu euh, projet d'installation ou toilettes publiques yi fu mu Donc, donc euh, projet la ville de Dakar a été initié à peu près ñaari at ci ginnaaw objectif projet bi mooy góorgóorlu ba Bir Dakar ñu samp fi 200 toilettes publiques toilettes publiques nak euh lu ko taxajok moy jóg mooy ba civisme mën a le wat mooy ci gàttal mooy ñun ñi ñuy tukki di daje ak suñu yenn mbokk yi ci yenn bërëb yi moo xam euh, Tugal moo xam états uni moo xam Angleterre suñu mbokk yi dañ fay nekk ci mbedd yi di fa daan seen doole ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam wante kenn ci ñoom xalaatul di am yenn jikko yi ci mbedd yi donc lu tax nit ñi suñu demee ci dëkk yooyu ñu mën a am yenn euh, comportement yi wante su ñu nekkee seen dëkk manaka ñen ñi dañuy jappé seen dëkk ngeen jëgël mu ci cadeau yi danaka melni mbalit té ñun dëkkuñu ci mbalit lu ko waral moy dëkk yoyu, mairie yu fa nekk dañuy gorgorlu ba di aménager seen dëkk ba fep fu nit ti nekk mo xam ci bureau wala ci mbedd bi mën ti soxla ci lu doomu aadama mën a soxla automatiquement day nekk à ta disposition donc gorgorlu ba fi fep fu marché nekk bi Dakar fep fu gare routière nekk bi Dakar fépp fu mbooloo di daje biir Dakar ñu góorgóorlu ba mu am foofu ay toilettes publiques toilettes publiques yooyu nag lu ñu bëgg mooy surtout pour première année bi mooy nit bañ fa fay dara parce que lu ñu bëgg mooy cultiver euh, le culte du civisme mooy nit ñi ñu fonk euh, seen place moo xam yàlla daf la baaxee nga nekk ci bureau wala yàlla baaxee la nga nekk ci mbedd bi foo mun nekk na nga fonk sa place parce que foofu ngay daane sa doole foofu ngay fay amee sa sutura donc góorgóorlu nag ba toilette bu nekk parce que bloc bu nek dafa am ñaari euh, parti ben parti bi moy jigéen ñoko mom benen parti bi goor ñoko mom donc moom donc góorgóorlu ba ci bloc bu nek mu am fa ben volontaire au ville de Dakar buy euh, assurer sécurité bi pour que mu baña am euh, yenn réero yi bu ci dess tamit ville de Dakar dina liggéey ak ben société nga xamné ne ni moom mooy toppatoo lépp luy doon entretien bi mooy lu ba toilette di set dafa am solo parce que ñun Sénégal danaka projet moom mën nañ ci taxaw wante suivi bi mooy am problème donc euh, di gërëm tamit société bu ngeen xam ne ni moo ñu gunge ci projet bi euh, ñoom xam naa ñoom ñooy mujj am le contrat d'entretien mooy euh, gunge ville de Dakar pour que lépp lu yàqu ci toilettes publiques yi ñu mën ko defaraat su amee ay problème d'évacuation ñu mën ci taxaw su amee ay manquement ñu mën ci taxaw ma bëggoon tamit yokk ci toilettes yëpp moo xam extracteur d'air yi moo xam éclairage bi loolu yëpp solaire da ko yor solaire da ko yor comme nu ngeen ko xamee Dakar dafa bëgg a une ville verte une ville euh, moderne. ngeen may ñu sant yàlla mi ñu may tey euh, ñu recevoir monsieur le maire de la ville de Dakar di Barthélémy Toye Dias mu ñëw xool fu liggéey bi toll ci toilette yi nga xam ni moo ngi nekk suñu ginnaaw te moom moo ko may mu may ko commune bi commune bi delloo ko askan bi kon ñu ngi koy sant ci loolu parce que xam ni askan bi moom askanam la ñu. beneen bi ci des mooy toilettes yi bu ngeen ko gisee ngeen xam ni dina jàppalewaat nit ñi ci seen dundin bu sell waaye dina xeex aussi li jëm ci wàllu lu salte ak tilim ndax ku xam toilettes yi fii ñu nekk xam ne ay garage oto la yenn yi ci ay marché la ñu nekk yenn yi ci ay lieu de commerce foofu nag nit ñi daan nañu am jafe-jafe pour fan la ñuy dem pour soxla bu ñu soxlaa seen bopp tey nag lii occasion bu mag la pour ñun pour que nit ñooñu xamaat tey seen dignité lan la bu ñu soxlaa seen i mbir yi nga xam ne seen mbiru bopp la ñu gis toilette yoo xam ne mën nañ ko occuper te li ci am solo mooy daf ñu ko bàyyil ñu def ko ak gratuité léegi nag li ci des mooy ñun ñi nga xam ne ko moom muy population bi mooy ñoo war a veiller ci sécurité toilette yi ci seetu toilette yi ñu ñoŋal ko ba mu mën a parce que moom mi ñu fi defal utiliser wu ko ay ñooñam utiliser wuñ ko daf ñu ko jox pour population bi mën di ko utiliser kon nag ñun ñoo war a góorgóorlu pour mu am gudd fan foofu ci turu population bi di commune Patte d'Oie vraiment ñi ngi sant monsieur le maire Barthélémy Diaz ci li nga xam ne moom la ñu ko defal ndax population bi la ko defal